dañu ñëw tey di eh, mettitlu li nga xam ne nii moom la ñu seetlu muy jaloog national bii nga xam ne dañ ko démarré ba pare defe ko ci kumba am ndey ak kumba euh, amul ndey li ñu jàpp mooy bu ñu nee dialogue national kon dafa war a doon jaloog boo xam ne bii ci Sénégal yëpp ñëpp ñu nga xam ne ay forces vives lañ yu nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi am fi seen kàddu mënuñu def dialogue te dugaluñu leen ci wax ji ñu joxe seen point de vue te tey dañu seetlu ne dañu segg syndicat jël leen tege leen ne le te loolu ñu ne ñun duñ ko nangu léegi nag liñ ci seetlu mooy deal la politique parce que acteur politique yi ñëw bugg a retrouver wu entre ñoom pour seet kan na ñuy jàpp ak ku ñuy bàyyi ak nu ñuy def te ñun jàppuñ ne lool mooy dialogue national dialogue national dañ fa war a daje ngir wax li nga xam ne moo yitteel askanu Sénégal jégg nañ tamit li nga xam ne moom la ci Modou Guiro addu jëmale waaye ñu jàpp ne loolu tamit ñun xaw nañu indil sax mbetteel parce que dañu foog ne bu ñu donkee ci réew central yi bu dee dañu war a bokk ci loolu dañu war a taxaw taxawaay boo xam ne travailleurs yëpp dañu ciy gis seen bopp waaye li nga xam ne moom la wax ak sujet d'actualité bi dafa bokkul parce que bu président taamee pour taxaw le premier mai ne gisul benn yokkute boo xam ne dana mën a am ci payeeru liggéeykat yi nga xam ne kooku kon euh, dafay fay espoiru liggéeykat yi ñu jàpp ne moom bu amee opportunité dem li mu waroon njëkk a défendre mooy fàttali gouvernement bi ak président beeg ñëpp ne amuñu droit ci rey ambition wu travailleurs yi te que tey travailleurs yi dañu soxla yokkute si seen liggéey erreur yi yëpp nga am na nii moom moo am am na koo xam ne kii moom la ñëpp joxoñ ne moom moo mën a réglé situation muy Famara Ibrahima Sagna ñuy jàpp ne bu dee bëgg na tey mission biñ ko dénk mu réussir ko mënul continuer si nii mu demee foo ko mu rectifier le tir